complexe Cheikhul Khadim ñu gën koo xam ci bu Touba bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides sumboon boobaak léegi matagul benn at jamono ji mën nañ ni jàll nañ ci jéego bu njëkk bi Serigne Ahmadou Badawi Mbacké mi nga xam ne moom moo jiite lu jëm ci comité pédagogique bi mi ngi fësal ne li nga xam ne moom moo di ñaareelu jéego bi jamono ji moom la ñu sumb loolu le bokk na ca fësal jamono ji ay classe test yoo xam ni lu toll ci téeméeri ndongo daañu fa tàmbali am njàng fi mu nekk ni incha allah waxuma la sax ba at mii di ñëw waaye feeg weer yu néew sëñ Abdoulaye wax na ko léegi danañ mën a daal di am kal tàmbali classe test yi di jéem a xool programme bi lu ci jar a jubbanti lu ci jar yokk lu ci jar a wàññi ba nga xam ne déwén bu école di ubbi incha allah day fekk moom lépp noppi euh, jàngalekat yi itam incha allah Cheikh Omar Anne ñëwoon na fi bu yàggul ci turu président de la république wax ne jàngalekat yi ñoom danañu ci jàppale bu baax a baax a baax teewut itam réew yi nekk ci bitim réew fenn fu nekk léegi sax ñooy woote ñoom far ne dañoo bëgg ñoom yëmul ci ñuy jàngale diine waaye lépp loo xam ne enseignement professionnel la wala enseignement technique ay professeurs yoo xam ne xëy na ci fi gën a suuf la ñuy tàmbalee ba université. moom Serigne Ahmadou Badawi Mbacke ak mboolem ingénieur yi nga xamante ni ñoom la seen loxo màcc jëm ci boobile tabaxub université ak yenn experts yu nga xamante ne nii war nañu caa sumb ay liggéey yu am solo ci biir université bi nag dajaloo woon nañu ngir daal di tànn li nga xam ne nii moom moo di identité visuelle bi maanaam université bi naka la war a mel ci biir gi ak ci biti gi. bañ mën koo jëmmal waaye itam mën koo ràññee fépp ci àdduna wangal këpp. lu tey nag ñu ñëwoon itam di daje daje boo xam ne architecte yi ak Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo moo moo moo yor euh, tabax yi ñoo woote woon boroom xam-xam yi ngir bëgg ñu waxtaan ci lii li fi nga xam ne fi lañ toll fii mu nekk nii mooy fi mujj mooy nag bâtiment yi nga xam ne bu noppee couleur yi ndax xam ngeen ne couleur sax dafa am solo ci lislaam naka la war a mel nañ ko la war a couleur yi war a mel karo yi naka la war a mel fenêtre yi nga xam ne moo ci nekk naka la war a mel bunt yi sax dafay indi ay échantillon yoo xam ne dañuy tànn bunt boo xam ne moo gën a méngóog fu mbooloo di waaye moom méngoo moo méngoo ak ak dëkk bi moo ngi couleur itam peinture bi men méngoo ak climat bi nga xam ne moom lañu nekk fii ci Touba. loolu lañ daje woon tey ñu def fi waxtaan wu am solo woo xam ne yaakaar naa ne bu buñ ci noppee yeneen bâtiment yi itam bâtiment bu noppi rek dañ koy dañ koy daal di mën a sanc équipement yi itam dañ ci xalaataale waxtaanaale ci ndax dañoo bëgg lépp dëppoo ak lislaam te lislaam mooy njàngaleem Cheikhuna al Xadim ndax sëriñ bi daraam génnul lislaam kon mu mel ne jamono ji daanaka bu ñu yeggul ci cëppaandaw li daanaka itam jege nañu ko jamono ji nag ñi nga xam ne ñoo ca gàlla woon ay liggéey kenn ku nekk yaa ngay fësal sa Pastef gros œuvre yi ci bari génn suuf si am na itam yenn batiment yoo xam ne ñi li ñuy wooyee batiment témoin yi loolu daanaka mën nañu léegi tey ñu daloo ko am ñoo xam ne itam dañoo sa taamu ne ñoom dañoo bëgg ñu tobbil leen ay sas sëriñ bi tobbil leen ay sas ñoom itam ñu nekk ca liggéey ba benn ngi ci sunu wet nii ji daare alxuraan ji nga xam ne ñi tudd ñi ñu tuddee euh, taliatul muridiya ñoo koy def boo toppee ci kanam tuuti da nga gis loo xam ne sunu penku sax sunu jàkkaarlook moom nii di jumaa ji macha allah ak fajukaay bii Serigne Cheikh mbaqe moom Cheikh Abdoul Hakim moo ko fi def gis ngeen moom itam fi nga xam ne fi la toll boo jëmee nee ca sunu ndeyjoor tuuti da nga gis liggéey bi nga xam ne waa Touba ca kanam ñoo ko fi def waa xisbu tarqiya ñoom itam gis nañ ne Serigne bi wan na leen bu yàggut jox leen ci liggéey ba ñoom itam ñu ngi ci njeexi njeexitalu ndaje mi nag sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke yëkkati na ay kàddu doon janoo ak taskatu xibaar yi li nga xam ne ni moom moo jëm ci critères yi ñuy tànnee ndongo ya nga xam ne ñoom la ñuy njëkk a jël foofee ca université ba dañu koy bàyyi ak sëriñ Muntaxa Basiru Mbacke mu fësal ci yéen am na ci fas yéene doxe daara ji moom sëriñ bi ci boppam mooy waxal boppam ni mu bëgg mu tàmm mu doxe ni dafa wax ne dafa bëgg dafa bëgg a yeesalaat dafa bëgg a sooxataat wóor wu njëkk ba baat la jëfandikoo mooy ña njëkkoon a ànd ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu seen njaboot la bëgg fu ci ne mu am ñu mu fa jël ñëw dajale leen ci benn barab ñu yar leen nanga xam ne na lañ doon yare seeni maam yu njëkk ya mooy yarub lislaam ba nga xam ne dara raxu ko yar bu sell ñooñu nag bu ñu tàmbalee fépp foo xam ne mën na yegg ci biir murid yi ak ci jullit yi ndax daaree lislaam la amut amut amut xaj ak seen waaye nag li ñuy wax naan dox bu ne day am jéego boo njëkk tàmbali dafa bëgg daal ñi nga xam ne dañoo yaroo seeni maam dañu sëriñ bi dañ leen defaroon yàlla dogal ñu génn ku ci nekk mu yabalaat la fa nga bàyyi ko woon nga dem fa di defarewaat te ku ne xam ne jamono ji ni mu demee fii mu nekk nii léegi nag gis nañ ne àddina bi jaxasoo na sëriñ bi nag bëgg moom defaat formé waat génération jiil boo xam ne ñoom dañuy yaruwaat ci yaru mag ñu njëkk ña boo ko defee nag ñu ñu ñu ànd nag ak jamono mën a tollook jamono ci ab fàttali complexe Cheikhul Khadim mile di université boo xam ne nii dafa bokkoon ci mébétu Cheikhul Khadim waaye itam waxoon ne boromam moo ko ko may ba noppi tey jii Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi teewal Serigne Touba ci kaw suuf jëmmal ko ak mbooleem njabootam di daara joo xam ne nii day boole jàngale ak yar ci ne ko Serigne Touba Mbacké digle woon waaye itam boolee jàng ak liggéey xam ba mën a méngoog sa jamono.